bismil ilaahi ci barkeb ay maqaama yàllaaw uqal bukaaw alaa saddaati maay bëgg a way tey jii ma way fii sangub góor yàlla yàllaaw kookaa di seex fallu kookaa màgg moora yi mbir moo gën ñu njëkk ña gën ñi ñépp yàllaaw kookaa di seex fallu kookaa màgg moora yi mbir moo gën ñu njëkk ñëpp gën ñi ñëpp yàllaaw ku mel ni moom mosu fi am mukk dootu fi am te dootu am fii ci duniyaa wóor na yàllaaw tey jii ma jooy sayxuna seex fàllu mbar ma ni mboolem lu nekk ci duniyaa jooy na yàllaaw tey jii ma jooy sayxuna seex fàllu mbar ma ni mes. mbokki jullit mbokki taalibe bi ñuy teewlu rajo Afia FM 93 point 0 Ndakaaru ñoo dikkoon fii ci kër Cheikh Mamadou Fadal fekkoon fi suñ waajur yi ak suñ nijaay yi xam ne seenu liggéey du lenn lu dul xëy ci sëñ bi gont ci sëñ bi mel ne <coughs> da romb nii ci kër gi ak biir kër gi di leen romb te doo xam lu ñu fiy def ndeke li nga xam ne moo ëpp solo ci dunduk doomu aadama muy tàggat ru ak di ko dundal moom la ñuy def ci ruq bi nekk liñ leen di romb saa yu nekk di dem ci ñoo xam ne nii xaj na li nii dal nun journaliste yi mooy eh, dem foo xam ne ni daanaka xaw ma lu nu fa yóbbu nun ndeke booba noo ngi romb ndigalal Serigne Touba loo xam ne nii dañ koo saxal ba ñi fi teewal sëñ Touba muy ku mel ne borom kër gi di Cheikh Mouhamadoul Fadal nekke yoon fi yi am ñoo xam ne dinañ fee bàyyi ñu di ko fi def ba eh, yàlla di dikk ba ci cheikh Mouhamadou Moustapha Falil ba ci cheikh Modou Amin Baara ba ci sëriñ Aboul Baraka ibnu cheikh Modou Fadal ñuy ñaan sunu borom mu gën koo guddal ofan gën ko wéral bu fekk fi sunu wayjur yi nga xam ne danañ ci mën a gis sëriñ Fallou Diop ak sëriñ Fallou Sow ñoom nga xam daanaka ci jeexiti eh, ndogay la xasaay yi ak eh, sëriñ Fallou Ndiaye say fay nga xam ne mooy président section turandoo yi sëriñ Fallou yi fii ci Touba ak li ko wër. am na moo fi nekkal turandoo Serigne Fallou yi ci section Touba ak Serigne Fallou Guèye nga xam ne mooy euh, conservateur li ñuy wax euh, di saytu kër gi ak boo fi dikkee euh, di gan gu tumuraanke ci guddi gi mu dalal la taxaw ci say mbir ba nga xam ne li ngay soxla incha allahu rabbi yàlla na la ko defee ni nga ko bëggee Serigne Fallou jaxate ak Serigne Fallou Sarr Serigne Fallou Fall ak sëñ Jibi Diop ñoom ñoom lañ fi fekk ak soxla yi nga xam ne ñooy saytu set gi ak Serigne Mbaye Diakhaté ak sëriñ Mbay yi ñoom ñëpp ci kaamil lañ bokk mel na ñoom wajal arimana ariman amina bi sun kafe na wajbula akaina ma yalla ya abitu bi Cheikh Ahmadul Khadim euh, ci barab bii ci biir kër sañ Fall loolu leen fekk ci mbaar mi kon xam naa ne bañ a guddal dañ leen doon def présentation bi nga xam ne ñoom ñoom lañ fi fekk waa rajo Afia FM ànd eh, ci ndigalal soxna Penda Ngaan Sougou ak El Hadj Mouhamadul Mansour mi chef desk religieux bi yabaloon na fi am barab yoo xam yi dañ leen dul gis télé duñ leen dégg rajo te ñoom ñoo yor liggéey baatin bi dëgg dëgg dëgg daanaka eh, li ëpp ci noonu ca mbumbaay yee la ñuy dem ak xëlëf xëlëf jàpp xalaw xalaw ja te daanaka ndekkee ñi nga xam ne ñoo nekk ci ndigalal sëñ bi moom ñi ngi ci ruq di ko def guddeeg bëccëg suba ngoon barab bi bokk na ci muy barabu alaaji Mouhamadul Fadal xëy ñoom ci kaamil bi lañ leen fekk noo gi jéglu ci xaw a yeex gi ndax euh, xaw nañ leen a dog sax waaye yàlla defal nu tawféex euh, fekk leen ci ñuy toll ci ñaan bu noppee it nooru daare néeg yenn xasida yi ci des yëpp ak diwaanu salawaat yi euh, danañ ko fi faral di def aousu billahi min alsheytaan irajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi diini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata allazina an'amta alayhim xayril maxdubi alayhim wala daalin barkeb Cheikh Mouhamadul Fadilu barkeb Cheikh Mouhamadul Falilu barkeb Cheikh Mouhamadul Falilu ah sëriñ bi sëñ Fallou li nga laaj day loo xamante ne day sunu bëgg-bëgg suñ boroom séddale ko séddale na ko nu tàmbali bañ ko tàmbalee it sëñ Abo mi nga xam ne moo fi toogal sëriñ Falilu gën ñu cee soññi gën ñu cee jàppale ñoo ngi ko ci ñaanal suñ boroom yàggal ko fi ak njabootu sëñ Fallu gépp ak dongo yëpp jëmmi mbaar mii nag. mag ñi nga xamante ne ñoo fi nekk am na ci magi tërbiye yoo xam ne dañoo tërbiye woon sëñ am na ci mag ñoo xamante ne dañoo tërbiyu Cheikh Maodo Moussa Falilou ak njabootu sëñ Fallou gépp ak soppe yoo xam ne it nag xeemeem kër gi ak bëgg kër gi ak yaakaar sëñ Fallou moo leen fi andi ba tax ñu bàyyi seen lépp nag saa buñ xëyee mbaar mii danañ fi jàng ñaari kaamili alxuraan suñu noppee kenn ku nekk am nga waxaf boo xamante ne ak say ci say xasida da nga ko da nga ko def buñ buñ yendoo ba ba ba ba ngoon bu ñu la takkusaan ba nopp danañ tas nuuru daaree ni séddale ko ñu jàng ko suñu noppee am na soxna soo xamante ne soo suñuy wax soxna soxna Jóob dafa jaayante ami Jóob da jaayante kafe ngoon ba kafe googu sax nooru daareñ lañ ko tudde kon lii mooy liggéey bi ci lañ nekk sëñ Fallou rek a tax ñu nekk ci ak ak ak ak ak xasida yi ak alxuraan di ci ñaanal nag jullit ñépp di ci ñaanal kilifa yépp lii daal mooy jataay maanaam bañ ko tàmbalee it jamonoy Alaaji Baara lañ ko tàmbali woon booba melul nii ay benn benn ñoo fi ñëw ci jamonoy alaaj baara waaye bi nga xamante ne nag sëñ aboo toog na alaaji Fallou Guèye mii daal ne ne da di ñëw fii su ngeen ñëwee fii ah, sëriñ bi fii lay ñëw bu ko defee ngeen tàmbali seenu dëggee na ngeen ko daan def ngeen def ko ni mu gën ni ca jàppale bu baax ñuy dem ba garaskaltoom defaraat ko nii ci ndigalal sëriñ Abo ci loolu lañ nekk maanaam ñi nga xamante ne ñoo ñoo ñoo ñoo sax ci jàng kaamil bi moom fukki nit a ñaar lañ fukki nit ak ñaar yi ñoo nekk ci daara ji ñoom saa bu ñu xëyee ah danañ ñëw jàng si bu ko wala nga am sa yitte seneen ba dox ko waaye boo ko doy am na ñoo xam ne ñoom bis bu set ñëw moom maanaam ki nga xamante ne moo fi nekkal sëriñ Falilu muy sëriñ Abo bi nga xamante ne moom laa la wax ca njëlbeenu wax dama ne la mag ñi nga xamante ne ñoo toppoon Cheikh Modou Moussa Falilu ak mag ñi nga xam ne ñoo tor bi yoon sëñ Fallu ñoo dem ba toog fii di jàng alxuraan ak xasida bi sëñ Abo ñëwit gën koo feddali ci loolu lañ nekk bi nga xam ne danañ dajale it at mu ne kenn ku ne danga joxe junni bu ñu àggee ci màggalu Kazu Rajab ga ñu ànd doon ñëpp dem jébal ko ki fi nekkal sëñ Fallu maanaam jamonoy sëñ Fallu de ñun liñ ci fekke booba mag ñi nga xamante ne ñoo toppoon sëñ Fallu kenn ku nekk dafa am fu lu sëñ Fallu tegoon waaye jëmmi daara ju nekk fii nag nekk ci biir kii ñu def nii ñuy def moom jamonoy sëñ Fallu boo mu fa sëñ Maamoor Mbàkke it nee na ma moom sëñ Fallu nee na ma sëñ Aboo ku yàlla jagleel la ndax daaray alxuraan ci biir kër sëñ Fallou ak daar ji ñu jàngee xam-xam ci biir kër sëñ Fallou sëñ Abo la ko suñu borom jagleel moom jamonoy sëñ Fallou moom ah, am na luñ ci fekk ca mujj ga waaye nag lii amu fi woon kenn ku nekk mag mi fi nekkoon ne kenn ku nekk sëñ Fallou jox na la liggéey boo xam ne ca ngay xëy ca ngay xëy di dem Baye Mbaye Sall sëñ Baye sëñ Ndiaye Guédé sëñ Dame Diop kasaal ñoo ñoo àndoon ak sëñ bi ñëpp rek waaw waaye jëmmi lii ñu am fii moom. ci sañ suñ borom moom sëñ Abo la ko la la ko dogal. waaw man de li ma ci xam keroog biñ may andi fii 1960 néew gii moom fi laa ko fekk giis gee ca biir kër ga fa laa ko fekk giis gee ca kër ba fa laa ko fekk daqaar gee fa laa ko fekk ginnaaw bi nag gisuma fi geneen leneen loo xamante ne cosaan la loo xamante ne sëñ Fallou ginnaawam lañ ko fi def lu mel ne neex ma yeeg ñooñu moom ginnaaw gi la fi am waaye jëmmi garab yi ma la tuddal moom. man fi laa ko fekk te booba sëñ Fallou bi ah loolu li ko waral turandooy sëñ Fallou yi ñoo ko gën a dolli ndax dañoo dikk ci sëñ Modou Moussa Falilou mu ne leen da di wut mbaar ci buntu kër muy mbaar mu rëy moo ne newoon turandoo yi di def ajuma ju ne suñ jullee ba noppi ñu génn xasida yi def seen ataaya toog fee waaye bi nga xamante ne dem na ba nga xamante ne yàlla dogal na nag mbaar ma denc fa nañ tox siwaat fii mbaar mii turandooy sëñ Farlu yi moom lañ ko tuddee adaayiqul fadaili moo nekk ci leetar bi nga xamante ne moom la ñuy jox sëriñ Fallu ba tey la newoon ca mbaar mooy ca buntu kër ba moo nekk ci mbaar mii lay doxoon ca mbaar moom moo doxoon ci mbaar mii muy ndigalul Cheikh Maodo Moussa Falilou la ba tax na ajjuma ku sëlmal fii ngay jëm si ah yàlla ngi ni suturaal nag ñuy am suñu ataaya ak suñu lu ñu am rek bokkoog ñi fi nekk waaw tàggatoo gi de mooy maa ngi dellu tuub tey jéggulu te leen balu àq ndax man buñ naan ma sax jëwriñ la maanaam man damaa xeeb sama bopp ci loolu di ñaan nag sëriñ bi nga xamante ne moo mën a dimbale mu boole nu dimbale nun ñëpp jàppal na suñu taalibe làqal na ko fa yàq yëgut Alaaji Fallou njaay ñi nga xamante ne it mooy président daayira bi comme noonu nga ko waxee ku man jilla ndax mi ngi ñuy jàppale it dina dimbal dina dimbale dina gàgganti ndax xelum jóobin moom xam nga ne matut waaye nag bu àndee koo xamante ne léeg mu roqali ko rek da cee mën a sante kon noo ngi sant tey balu ak tey bal ñëpp ak nag tey ñaani sëñ Abo mi mu yàgg fi lool sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool ci barke sëñ Fallu lii ñu bëgg ci xaside yi bëgg ko ci alxuraan ji suñu borom nangu ko tasaare ko ci mboolem jullit ñëpp te def ci Sénégal gi jàmm ak réew ñëpp ci barke Alaaji Fallu bali sëñ Tuubaa bëgg ci taalibe yi bëgg ko ci jullit yi borom defal ko ko nam ko bëggee ci barke sëñ Fallu maa dafa mel ne sëñ fàllu Ndiaye moom euh, am laaj yoo xam ne xaj na du xóot ndax bu bu bëggee xóot day am fu ñu koy jaare waaye bu fekkee laajub diggante ndongo ndongol daara ak ndongal daara euh, dana mën a woyof muy turandoo sëñ Fallou yi gis nañ ne euh, ñoom it ni ko sëñ Fallou Diop waxee waaye man fi ma bëgg kii mooy muñ muñ maanaam sëriñ Fallou mi nga xam ne mooy suñ turandoo waaye mooy royuwaay jaami yàlla yu baax yi muy ak muñam daal ndax am nga loo ci dégg ci mag ñi ñu di ko nettali ci muñ goo xam ne sëñ Fallou daanaka muñ ak ni mu fi nekk nga xam ne jamono jooja donte bu ko neexoon mu neex waaye dafa meloon ni jamono neexul woon ci moom waaye eh, taxut mu woon mu soppi aw doxinam wala waxinam wala lennam dana dégg rek ne tekk ba yàlla di ko coobare waaye ba yàlla di ko coobareem xéwal yëpp wër ko dafa mel ni dundam googee soppiwu ko woon loolu daal bëggoon nañ cee am ay kii Serigne Fallou njaay Serigne Fallou Ndiaye mi ñu la jox mooy Serigne Fallou Ndiaye say fay mooy président section Dakar euh, Touba turandoo Serigne Fallou yi muy xaada iqul falaid fii xidmati xëyri wasail kon incha allah sëñ Fallou jox na nga nuyoo ba noppi laaj yooyu euh, muñuk sëñ Fallou gi ak bi fi nekkee xéewal yi wër ko xéewal yi waroon ko gannaaw mel na ni ci zahir mu ne teg am melowum doon dunde ba xéewal yi dikkee bu wër ko melowoo mu doon dundee ba ni yàlla dikkee coobareem soppiwu ko ci doxin soppiwu ko ci waxin soppiwu ko ci euh, aw melo ak ak col incha allah sëñ Fallou. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sant sëriñ Fallou nga xam ci sëriñ Touba moom di leen di nuyu mboolem yéen ñi ñëw fii sëriñ Fallou Ndiaye yi ànd ak rajo yi di nga àndal ñëw fii ci mbaal mi nga xam ne fi la ñuy jàngee alxuraan ak xasida li nga laaj nag xam naa lottu naa ci di ko wax waaye xam naa sëñ Fallou daal moom neewoon na ñaar rekk lay roy muñuk suuf ak taalibe Cheikh Ibra ñaar yooyu moo doon bëgg-bëggam taalibe Cheikh Ibra ak muñuk suuf ba képp koo xam ne kii moom nga àndal mooy sa buntit yaakaar naa ci bunt boobu rek ngay jaar te bunt boobu daanaka mooy lépp ah sëñ nag doon na koo xam kii kenn la ci njabootu sëriñ Touba yi ngi ñaan suñu borom yokki leeram ak mboolem njabootam ko jiitu gépp nun taalibe yi fi des mi nga xam ne moo fi xalifa sëriñ Fallu suñu borom yàggal ko fi wéral ko fi ak mboolem njabootu sëñ Fallu bi fi des gépp ak nun taalibe yi ah nun turandoo yi sëñ yi nag sëñ Modou Moustapha mooy ki nga xam ne moo sasoon daayira turandoo sëñ Fallu sos fi daayira sët yi sas fi daayira daayira maa obse yi lépp loo xam ci daayira yu ci bari daal ci diggante turandoo sët ak yëpp fii lañ fii ku koy def daal fii nga ko royee ndax sëñ Moussa sëñ Modou Moussa du moo ko sosoon daayira bi mi ngi ko sosoon 1994 lañ sosoon daayira turandoo yi mu taxawal ko jàpp ci ba ci mbaar mii sëñ falu Diop doon wax sax kere bi ñu ko jébbalee ñeenti million la wax ni dama bëgg ngeen defal sëñ Fallou am mbaal waaye nag ñeenti millions yooyu dama ko ciy tàmbalee waaye nag du leen xaar man damay defar lu ngeen jox lu ngeen am jox ma boo saa matee ngeen bind seen tur mu defar mbaar mi ba mu àgg ci 14 millions 400 mille kere ba ñuy jébbale ba jébbale lim lim loolu mu waxit dafa daal di wax ni bind leen pour leen tableau bind ci mbaar mi 14 millions 400 mille yéen turandoo sëñ Fallou yéen a ko liggéeyal sëñ Fallou mbaar moom it yaakaar naa siiwoon na ci àdduna foo mas a dem ci àdduna ñu ne mbaarum sëñ Fallou kon turandoo yi foofu lañ tàmbalee ba sëñ Modou Moustapha soli lu jógee it Cheikh Mamadou Lamine mi fi toog it yàkkaliwaat ko soññaat nu ci jàppale nu ci ba def ci loo lu kawe jort moom it bi mu fi jógee suñ borom yàlla na yokki leeram suñu aboo barake mi fi toog gën noo soññaat gën noo jàppale ba yóbbu yóbbu ko foo xam ne fii kawe na jort kon ñu ngi ñaan lépp lu mu bëgg a liggéey sëñ Fallu ak mbooleem mi rakkam ak njaboot na ko suñu borom may lu kowe lool dañ ànd kook moom turandoo yi nag ci loolu lañ ne sëñ falu Ndiaye mooy sëñ Fallou da doon koo xam ne kii moo waxoon ni mënuma kuñ ma tudde ma xotti ko mu mbootu waaye kuñ ma tudde ku ne nag moo ndeyam ak bàyyam dinaa leen warlul àjjana damay lu wér kon moom mbootu yaakaar naa moo gën ci mbootu yi ca lañ jógee taxawal daayira bi nag loolu ko la ko warlu nuy war nañu nañoo delloo jukko mënuñ koo delloo jukko sax waaye ñu taxal ay ab daayira di ci def lañ man ak luñ mënut bu magal màggal Kazu Rajab ñëwee ñu dawuti carte bépp turandoo suñ falu ñu la joxeel juróom benn téeméer dagg sa carte membre ñaar téeméer màggal gi ñëwee nga togg añ wàcceel sa turandoo kaamilu alxuraan loolu lañ doon ko jéem a delloo njukkal waaye mënuñ ko sax waaye nag ñu def ci luñ man foofu la turandoo yi ne loolu sëñ Fallou yaakaar naa xam nga ci dara daj na Sénégal lu ne def nañ fa section am na ñu ko jiite ba yow mi yaa jiite Dakar ak sëñ Fallou kon daal daanaka liñ jooroon wax lépp sëñ Fallou Diop wax na ko daanaka wax ji jërta guddal waaw lépp ci liggéey bi moom bu magal kasra bi du jub lay tàmbali bu boobaa secrétaire yi day am ñoo xam dañuy nekk fii ci bunt bunt ko sëñ Fallou ci gis gi fi la def mbaar sëñ Fallou Diop mii wax yenoon na ci say wu mag ndax moom mooy ruus yoo xam ne bu màggal saa yeneen boo dikkee di turandoo boo ñëwee mu daggal sa carte wala sa carte membre moom mi ngi fii ci daara ji moom loolu boobu say moo moo koy loolu it bi ko taxawalee dañoo euh, samp ay section ci biir Touba quartier bu ne dajagut nag waaye quartier bu ne yu ci bari def samp nañ fa dem fa woo mbooloo turandoo sëñ Fall yëfa ne tànn ay nit jiital leen. ñoo yore section boobu di fa ñoo xam bu ñu dajee ci euh, sëñ Fallu mi tey bu beneen bis bi dellusee ñu dajewaat ci beneen sëñ Fallu ñooñu section ba noonu la ñuy doxee noonu lañ ko defee ci biir tubaa def ko ci Mbàkke ak dëkk yi ko wër njaaree euh, bi ña fa ña fa noonu la ñuy doxee maanaam président sëñ sëñ sëñ Fallu Gaye moom sëñ Souley Gaye moom it ku jàmbaare la booba bu dee Dakar sëñ Fallu Jaay Jasaaki mais sëñ Fallu Kan ñoom ñoo yore loolu kees sëñ Fallu Kan Kawlax sëñ Fallu Diba noonu lañ toppee yi daal Tamba sëñ Fallu Tine Eh, ndar sëñ falu Lëy noonu lañ toppee régional yi ba ci Touba Toul département yi sëñ Fallou Diouf ñoom eh, dëkk yëpp daal boo ko limee doo fi mën a kii waaw waaw yëpp daal ku ci ne samp nañ fa sellir yoo xam ni am na ku jiite turandoo sëñ Fallou yi ko kuy toppatoo liggéey bu ñu demee ba Kazu Rajab nag ñoom ñëpp dañuy màggal si ñi indaale seen i xiiwal am na ñooy lañ eh, lañ liggéey am na ñooy dañ ko indaale waaye dëgg-dëgg boole liggéey bi mooy buñ demee ba gàmm ko ci dañuy dem waxtaan ak sëñ bi ko dañoo bëgg a jébbale daayira turandoo sëñ Fall yi mu wutal nu bis bu boobaa nag ñu téléphoné mboolem fu personne wala section neen jàpp nañ bis sàngam dat sàngam daanañ dem Ndindi ndax mooy siège social bi sëñ la ñuy turandoo yi fa la ñuy daje ñu fab liggéey bi jébbal ko ci muy bari si daan turandoo sëñ moom la jiital ku ñuy wax Alaaji Njaay Alaaji fal moom la ci tegoon waaye du ndee ba xam ne kattanam ak yaram mayatu ko ci dañ ko jox sëñ Fallu Njaay may gi mooy président national bi sëñ Fallu sëñ Motala mooy président d'honneur bi waaw boobu waaye fépp ci kër sëñ Tuubaa yi am nañ Fallu ñoom dañuy teew ñu jébbale ba li lim biñ ci mujj jébbale daal juróomi ñeenti million la maanaam sax loolu ñu ngi koy jégalu waaye ñu ko wax waaw moom bu ngeen ko dee jàllale jërul tudd ndax taalibe du def jëfam ba pare di ko di ko di ko tudd da ngay naw sa jëf sëñ bi moom loo ci def da nga ko war a xeeb waaw Moussa Falilou ci bëgg sëñ fal ak ak yaatalam ak euh, sos lépp ginnaaw sëñ Fallu joxoon nañu fa pàkkub téeméeri mètre ak ñeent fukk yaatoo ña ak ñaar fukk pàkk ba noonu la daggoon nañ ci téeméeri mètre miire ko ba mu daj bàyyi fa 40 mètres yi mu ne ci kanam doon am pay yëkkati fa jumaa joo ne dem na baraas yi waaw kon turandoo yi loolu ci seen liggéey la waaw boo xam ne bii ñu ngi ciy laase ñëpp ki woo ñëpp képp ku leen ci mën a jàppale ci kër googu ba ndax dañ caa lañ ci seen yéene daal nee maam jaaree def ca Poroxaan yéene nañ ko fii ba fal yi am euh, daara joo xam ne ji képp ku di turandoo it dañuy bëgg nga jàng fi mokkale waaw ñu ngi dox ci yooyu tànk maa daal su fi yëgul na waaye nag na ko suñu borom àggale ci barke sëñ Fall ala taxawaloon nañ ko war fa kàll mi ngi doon dox ci sëñ Mourou Moustapha Lilou moo ko fa mi ngi doon dox jamono yi sëñ Mamadou Lamine it mi ngi dox ba ci sëñ Abo mi it mi ngi dox daal ja ma nga fa defar nañ fa néeg yu baax ña nga fay jàngale te ndax day barab boo xam ne bii kër sëñ Touba la woon wala ko mbaaxaan fekkoon loolu nag daa bokk ci cëri sëñ Fall yi waaw ñii fi nekkal sëñ Fall yi kenn ku fi toog ne yaa ngi koy toppatoo ba sëñ aboo Baraga mi ñu ngi koy toppatoo macha allah lépp a ngi wax tàggatoo foofu rek wàcce kàddu yi tey ñaanal waa rajo bi suñu boroom gën leen a kowel ba lépp li ñu yéene ci yoonu murit ak ci lislaam suñu borom kàttanal leen bañ mën koo def nañ ko bëgg sant sëñ Fallou Ndiaye mi ngeen àndal te ngeen xam ni moom it jàmbaar la ci kër sëñ Fallu jàmbaar la ci turandoo sëñ Fallu yi ñaayo xare la ci lépp lu ñuy def lu ne daal moom ca bopp waaw ñu leen koy seet di ñaanal suñu boroom yàggal taxawaayam te eh, defal nu paju ajo te daara ji suñ boroom gën ko jëmbat ñi fi sax di ko jàng suñu boroom gën leen a wéral kon a guddal seeni fan yokk xiwal yi xiwal yi nag moom mi ngi yokk nag sa kër sëñ Fallu moom xiwal du fi jóg saa su ne xiwal yaa ngi ñëw waaw jërë ngeen jëf kon sant bu baax jërëjëf Cheikh Madou Fadilou Ndiaye say say fay léegi leen di euh, ziar bu baax wax dëgg yàlla euh, wax ji sell na wér na man mel ne xam naa ne daal ku bëgg a liggéeyal yàlla yonent bi ak Serigne Touba Cheikhul Khadim am na bunt bu mu mën a jaar ngir liggéeyal ko ndax dafa mel ne euh, ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo donte ñëpp a ko waaye ñu ko gën a daa mel ne ñoom amuñu jotu dem fenn bañ di leen gis di jox dara ci seenu barab lañ nekk ku yàlla baaxe nar laa fay ëllëg dana la mat ba nga gis leen ah, bu ko defee la ngay liggéeyal nga mu wóor la ne moom da nga ko ci teg ci loxo yoo xam ne nii dana tegu ci loxo Cheikhul ñoo ñooñu daa mel ne dañoo amul jot dem fenn. ñi nga xam ne ñooy ñu sant Diop moom eh, nga xam ne seen i kaddu dana seen i tànk mën naa dem fu ne daanaka ñoo fay dem xéwloo li nga xam ne njaay yi nga xëy dañu toog di di jàng kaamil ñu ca jot bu ko defee mel ne kër Serigne Fallilou Mbacké ku fi duggati boo demee ci sa boo duggee ci bunt kër gi rek boo demee sa wetu càmmoñ tuuti ci wetu douche da nga si fa seen benn bunt boo fa duggee fa new nga nekk ay jàmbaara nga fa yoo xam ne nii ci ndigalal sëriñ bi la ñuy gont ci la ñuy yendu waaw lépp loo xam ne nii wóor na la ne bëgg nga ko jox sëriñ Touba daal boo leen ko joxee incha allah rabbi moom Cheikh Ahmadul Xadim dana ci jot ndax sëriñ bi kat euh, dafa mel ne kanzi kitaabu wal xadis wal adab laa jam u fiddatun wala jam u saab la waxoon kitaabuka diini wa huwa xilli wa muunisi hadaani bil haadi wa nafsi bi sakka kon loolu daa mel ne ku dikk fii da nga ko mën a jëf jëflanteeg sëriñ bi kon Cheikh Modou Fadal noo ngi leen di ziar di ziar euh, taalibe sëriñ Fallu yëpp waaye ak ak ak turandoo yëpp. ndax li nga fi wax euh, mbaar mi nekkoon fii ci buntu kër nga xëy dañ ko toxal mel ne gis naa ko euh, ca buntu kër sëriñ fa sëriñ Alaaji Baara nga nekk ci ca ca Aliya bi ma ko gisee daa mel ne nuroo nañ. Ah, te it eh, am na fu ma déggoon ci mbokk taalibe ñu naan eh, defoon nañ ci lu ma 18 millions wala lu ko jege nga xam ne Serigne Fall sëñ Mour bu sa jàng dane woon bu leen neexee ngeen bind fi seenu tournée tournée Sëñ Fall yi ñoo bismil ilaahi ci barkeb say xi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb say xi faddilu buur yàlla dolli noo ay maqaam yàllaaw bisimil ilaay ci barkeb say ci fàddilu mi buru yàlla dolli ay maqaam yàllaaw uqal bukaaw alaa saddaati maay bëgg a tey jii ma way fi sangub góor ñépp yàllaaw kookaa di seex fallu kooka mag moo rey mbir moo gën ñu njëkk ña gën ñi ñépp yàllaaw kooka di Seex Fallu kooka mag moo rey mbir moo gën ñu njëkk gën ñi ñépp yàllaaw ku mel ni ma mosu fi am ku dootu fi am te dootu am fii ci duniyaa na yàllaaw tey jii ma jooy sayxuna Seex Fallu mbar ma ni mes mboolem lu nekk ci duniyaa jooy na yàlla oo tey jii ma jooy seexu naa seex mbar ma ni mees nekk ci